À l'occasion de sa tournée de campagne pour les élections législatives, l'équipe de l'APS s'est rendue chez Mohamed Ibrahim Agnès, fils de Maulana Ibrahim Agnès, pour recueillir des prières. Voici. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons dit delloo nuyoo du nuyu Sénégal à travers euh, seen nu mu tudd sax ah, ah, ah télé bi TV. waaw APS TV à travers mom mboolem Sénégal yi fu mën ti nek ci adina bi ak sax ñi nga xamni Sénégal itteel na leen ñu nek fu na mëna nek ci adina bi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fi ci ci Kër Baye ci sal Baye saali saal bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu fi ci Kër Baayam mo nekkon salam bu ngeen ko fi fekkon mom ci boppam fi la leen di recevoir kon ñew ngeen ci place bo xamne place bu am barké la place bu am yaakar la ñi ngi yaakar yalla dimbali ñu li ñu jublu muy élection yi yàlla def ci jàmm dal mu àgg ci niñ ko buggee te yàlla def ci sutura def ci dal te ñu xam ne yi tamit Sénégal moom lañ am mooy suñu réew waxuma sax e, ñeneen ñi waaye képp koo xam ne yow jullit nga da xam ne yàlla dafa ne àddina bi man dama koo defar waaye jël doomi aadama dénku ko ko mu nekk xalifa mu nekk sama xalifa ci kaw suuf maanaam yàlla bu doon am gouverneur wala muy am ministre ci misaal kon doomi aadama mooy ministre mooy gouverneur am mais poli moom moo yore politique am moo yore ay orientation moo yore léppam mais daf la ko dénk rek comme ni ñu dénkee gouverneur comme niñ dénkee ministre comme ni ñu dénkee préfet kon nag bu fekkee ne ñun ñooy préfet yàlla ñun ñooy gouverneur am ñun ñooy ay ministre am kon ci programme yàlla la ñu war a dox te programme yàlla nag point bi ci njëkk mooy jàmm te kon nañ ko def ci jàmm def ko ci dal def ko ci sutura def ko ci démocratie ku ku gañee ñoo xam ne moo gañee ku gañee kuñ gañee yi tamit nga dem uteyaat parce que loolu mooy loolu mooy àddina loolu moom ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla defal ñu ci dal te ñu ngi wax ak taalibe yi képp koo xam ne taalibe nga wala ngay déglu ndigal ñu ngi lay wax ne lu mënti xew moom mën nañ laa bañ a jox orientation ne la demal fii wala demal fii waaye am na loo xam ne moom suñ la ko waxee amoo droit bañ ko mooy nanga nanga ànd ak dal na nga ànd ak jàmm bul yàqal kenn te tamit ñu ngi lay ñaanal yàlla yow tamit bu la kenn yàqal loolu mooy li nga xam ne moo moo yore réew parce que réew yi tamit responsabilité la boo xam ne responsabilité bu mag a mag la responsabilité la fii ci kanam àddina bi ak kanam askan wi waaye nag responsabilité bu ëpp boobu la ci kanam yàlla parce que yàlla moo moom àddinaam comme ni ma la ko misaalee rek dafa mel ni benn gouverneur bu ñu indi ci dëkk bi euh, président dénk ko liggéey euh, bu fekkee ne euh, xam na kan ki ko dénk liggéey bi kan la te xam na ne dana rendre compte il faut mu góorgóorlu ci def liggéey bi su fekkee ne gouverneur yi ak préfet yi ñu ngi góor góorgóorlu pour bañ président mere leen wala ñu bañ rendre compte boo xam ne baaxul waaw bañ a fay ci seen mission bi kon nag ku ku la wóor ne da nga taxaw ci kanam yàlla danga xam ne kon lu lu lu doy waar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa buggu réewam buggu réewam ba bi ko màkk di génnee pour muy dem madinatu munawara boobu am na juróom fukki at cinquante ans la am mais bi ñu koy génnee màkk mu dem ba ci biti màkk ba yéeg ci benn montagne boo xam ne dafa tiim màkk dafa jooy ba dënnam bi tooy ba ronq ñi tooyal dënnam bi ñu ne ko looy jooy mu ne dëkk bi ma bugg génnee nañ ma fa billaay bu taxutoo nag da dañ maa génnee du fi génn mukk parce man màkk laa gën a bugg ci àddina ku am cinquante ans am ba pare nekk ci qualité ak niveau ku toll ku toll ni euh, euh, nu mu tuddati yonent suy jooy li koy jooy loolu affaire caaxaan te mu ngi doon jooy parce que mi ngi génn réewam ñu ngi koy génnee réew mu ne maa ngi ñaan yàlla yóbbu ma ci dëkk bi nga xam ne moo ko gënal moom comme man génne nañ ma ci dëkk bi ma gënal yonent yàlla yóbbu ko ma dina waaye bi ko yàlla mayee ndam yi tamit dafa dellu at Màkka ñëw développé Makka xoolal Makka tey nim nim barkee lépp lu ñu luy ñor ci àddina bi la ca gën a qualité Makka lañ koy yóbbu la fa nekk ci développement la fa nekk ci barke nekkul ci sax réewi tubaab bi te pourtant tubaab yee koy defar mais loolu yëpp barke yonent bi dëkk ba mu fa dëkk la kon ñu xam ne nit ku nekk fa mu dëkk moom moo ko war a développé au contraire mu di ko yàq kon lu waroo waroo waroo ko yàq Makka barke bi mu am yëpp te pourtant tooñ nañ fa bi def nañ ko fa lu nekk waaye nag barke bi fa la dëkk moo tax màkk gën a barke ci dëkk yi te loolu kenn mënu koo dindi parce que rek yonent bi dëkk na fa ba pare kon nit ki fu mu dëkk foofu mooy mooy fay jaamukaay yàllaam fa la war a développé ñii ñaan yàlla événement yi jàll ñii ñëw ñu mi ngi ñi ngi ñi ngi dugg ci sport sport bi tamit fan yi am ci loo xam ne lu métti la parce que man maa ngi wax ne dëgg-dëgg suñu réew yi dañoo waroon a jublu ci sport bi développé ko parce que dafa am lu bëri lu ci nekk lu am solo ndax actuellement nii économiquement xaalis bi ci nekk dafa bëri te xale yi ci nekk man dama ne sax euh, côté côté sport bi moo gënoon a jara toppatoo parce que waaw industrie bu mag a mag a mag la waaye danger bi aussi mooy dafa am ñu bëri catégorie nit bu bëri bu ci nekk boo xam ne suñ amee seen teraanga nekk ay nit mën nañoo jëriñ réew mi mais suñ échegee mën nañoo soppaliku leneen loo xam ne baaxut waaw donc kon ñooñu dañ leen di téye ngir ñaari yëf ngir ñu am seen teranga réew mi am teranga waaye tamit ñu bañ a dem ci banditisme wala dem ci leneen loo xam ne buñ amul teranga mën nañoo dem ci loolu kon sport pour loolu la def déjà pour wér-gi-yaram la man mii ak âge bi ma am nii ba léegi am na ñoo xam ne daf leen di jaaxal damay dem sport damay fubali suba suba sax damaa am match ci stade bii tey jii lañu amoon match waaye ministre premier ministre bi ñëw moo tax eh, match bi match bi amul loolu lu tax ma di ko def mooy ne wér-gi-yaram dafa am solo ci nit yéen ñii seen liggéey balaa ngeen koy mën a lekk waaw balaa nit a mën a liggéey dafay am wér-gi-yaram balaa nit a mën a gouverner day am wér-gi-yaram balaa nit a mën a jàngale day am wér-gi-yaram donc wér-gi-yaram lépp lu ci nekk rek te l'islam daf ko santaane l'islam daf ko santaane yonent bi sallallahu alayhi wa daf doon course ak jabaram ñu génn di dem jamono bu bu compliqué parce que dañ doon dem guerre ñu ànd di dem mu ne gars yi saaba yi jiitu leen ma ñu jiitu mu ne soxna si man ak yow ku ci ku ci am gën a am condition physique ndaw si ne ko maa la gën a am condition physique ñu dàqeante ndaw si raw ko di ko ñaawal beneen yoon mu ne ko kaay ñu dàqeante ndaw si raw ci di ko ñaawal troisième fois mu mu raw ndaw si di ko ñaawal ndaw si ne ko noonu da nga maa nax da bàyyi ba ma am ba ma jël pois nga soog maa nax pour pour pour pour pour gagner ma mais maa la gagner en tout cas deux même bu dee kii la 2-1 la ñu ree kaf parce que loolu loolu mooy sport kon loolu rek wane na ne loolu mooy esprit sport le Sénégal daf ci am dafa dafa dépassé man maa ngi dégg ci ben télé euh, ñu koy wax bitim réew ñuy wax Sénégal euh, yi fi xew ci stade bi mais dafa ñaaw dafa dafa dafa Sénégal lolu du terangam Sénégal lolu du jikkoom Sénégal lolu du liñ ko xamé parce que bañ nañ ko ba football bi lion de la teranga la ñuy wax euh, teranga nak mom moy moy moy moe teranga rek kon ne ñepp and ak sen sago ñu dal dégg nga te xamné réew mi ñoko du du du lu ñu taal tamit ñu ñaan yàlla dal même tey jii muy opposition bi muy état bi ñëpp dañoo war a ànd ak seen sago dal parce que tamit bu dee état bi la ku falu na la wóor ne ku wàcc moo tax nga falu kon ku falu da nga wàcc mais ku faloo guti tamit euh, danaa la wax la la Serigne Fall waxoon bañ ne ko sa rakk diw dafa bugg a yàq sa xilaafa gi mu ne déedéet moom xilaafaam gi la bugg a yàq man toog naa ci ba pare. 16 bi man toog naa ci ba pare su ko dammee te ci la war a toog bu ñëwee moom bu ñëwee du am ci 16 bu mu toog. kon kon loolu du du du xam-xam bàyyi leen ko mu mu mu mu mu ànd kii parce que réew mi ñun ñoo ko bokk comme euh, réew mi nga bëgg a jël boo koy jël da nga war a fekk possibilité yi nga war a liggéeyee ne fi mais boo yàqee réew mi ba pare. boo boo waaw waaw teg ko ci mauvais état ba pare ñu jox la ko pour nga pour nga kii ko nga nekk fi naan non diwa ko yàqoon diwa ko yàqoon am na lu lu parce que léeg-léeg ñu fal fi nit mu toog fi 40 ans naan ba diw ko yàqoon diwa ko yàqoon mais loolu yëpp euh, mooy mooy wane ne ñun dañoo war a ànd ak suñu sago dañoo war a dellu siyaat ci suñ xel xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ak koo mënti doon réew mi rek lañ am te mooy suñu wàll ci àddina bi waaye nag mooy suñu wàll yi tamit ci responsabilité ci kanam yàlla bu fekkee ay jullit lañ kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu dal Cerno euh, Birahim maa ngi lay gërëm parce que yow mbokk mu baax nga fii xam nañ la Euh, bi bi nga tollee ci jàng ful la def nga ko ci jàng jàng ba pare ba nga xam ne nii tamit euh, bi ñu lay gisee bi ma la njëkkee gis ci télé ngay def benn débat dama kontaan parce que mbokk moom mooy mooy mooy sagu mbokkam nit ku nekk boo amee sa mbokk boo sañoon dafay num tëdd kon nag ñaan yàlla nañu yàlla may Kaolack gii nga xam ne moom lañ am Baye Niass daf daan ñaan mu ne addina bi yàlla na ci Afrique gën parce que man Afrique mooy sama wàll ci addina bi waaye Afrique bu gënee Sénégal yàlla na gën ci biir Afrique Sénégal bu gëné ci biir Afrique yàlla na Kaolack gën ci biir Afrique Kaolack ci biir Afrique bu gëné mu ne yàlla na Madina gën ci biir ci biir ci biir biir Sénégal Manam, manam. pour jàngal la nit ku nek dafa wara tambalé ci mbay ci sa wewu ku nek ci sa dëkk ngay commencé défar défar sa raisons défar sa réew soog défar Afrique soog talal adina bi loxo pour pour pour jëflanteeg ñom donc nañ xol ci réew yi nga xamné guerre yi am nañ fa ak musiba yi fa xew yépp ak yàqute gi nga xam ne moo am ci àddina bi yëpp te yëpp yu ndaw yu ñàkk fayda moo koy moo koy kii xëccoo da nga wàcc par force dama kii xam nga Alaaji Abdoulaye mu bàyyi dafa am lu moosa wax loo xam ne lu jar a fàttaliku la euh, même Abdoulaye Wade mi bi mu fi nekkee président bi bi mu nekkee ci opposition bi ñuy xeex xeex xeex am na benn jamono mooy bi ñu defee seen kii boobu noonu dajale opposition bi yëpp waaw dem ne dañuy sensibiliser sëriñ si ku nekk nag ñu wax la ne Abdou Diouf nag bi yoon na ko wax na ko na na pare pour wàcc parce que ñun teg nañ ci suñ bakken yi pare nañ pour yàq réew bi mu wax loolu ba agsi ci teg nañ ci suñ bakken yi El Hadj Abdoulaye na ko wax boobu retireel wax boobu wax boobu baaxul parce que ndagam yow mi agsee gut ci nguur gi yaa ci mën a teg sa bakkan bi kon moom mi mi la mi ci xas ba toog bu ci tegee ne bakkanam bi réew mi yàqu te du am njëriñ bu ci teg sa bakkan bi loolu du wax retireel wax jooju kon loolu mooy wax ci kon ñun ni tamit ñi ngi wax réew mi yëpp loolu di ñaan jàmm nawet bi yàlla mottali ko ci jàmm def ci ay barke def ci ay xéewal bañ dépassé lii ba nekk ci leneen ba yeneen élection yeneen élection ñëw parce que Sénégal lañ am te euh, macha allah fii la suñ maam yi euh, def teraanga jaloore yi nga xam ne def nañ ko fi waaw étape la rek bu ndaw ci ci ci dundu nit ki ci histoire réew ñaata élection fi jaar yoo xam ne yëpp dafi ne dañ koy nettali rek mais li am solo mooy nit ki sàmm réew mi ba moom ay nekkam bañ a yàqu bien-être doomam yi bañ a yàqu avenir ay doomam bañ a yàqu euh, euh, avenir réew mi bañ a yàqu njàng mi euh, dégg nga ak liggéey bi dégg nga loolu loolu mooy wax ci ñu sàmm loolu ba nga xam ne réew mi tamit lu mënti xew rek buñ paree rek réew mi moom mooy nekk réew mi parce que même perte benn pour pourcentage bu ndaw benn 10 pour cent ci sa àq wala loo foog ne yaa ko moom te réew mi taxaw moo gën réew mi takk réew mi bu takkee jëriñut kenn dara Baye Niass daana wax ne mu ne mooy leen indi réew indi fitna ci réew parce que caay-caay ak yàq kenn mënu koo jëggaani jëlee ko ci biti indi ko dugal ko ci biir réew mi ba pare mucc ci ku yaakaar ne mën ngaa teyal réew mi ba pare mucc ci koo mënti doon dangay nax sa bopp doo du kenn mënu ko kenn mënu ko réew mi buy yàqu ñëpp lay yàqul buy defare ñëpp lay yàqu réew daal man ni mu koy misaalee dafa mel ni nga dugg avion avion bi dem ba ci kaw ba ci kaw euh, air bi nga xam ne fi mu ne nii euh, wàccagut capitaine bi bugg nga ko buggoo ko bu yeboo nga ñaaral ko jàmm rek négocier ba avion bi wàcc parce que tant wàccul rek prop eh, amagu bu xasse bu wacc nak bu bo ku nek beuri wax di wax rek kon nak ñi ngi ñaan yalla may ñu jàmm asalaamaaleykum wa taala wa barakatu télévision si agence yi euh, agence France Presse ak MAP agence maghrébine de presse bu Maroc ñom ñoo doon ñom rek nga ko doon gis legi ñun nak yalla may nañu ba ñu entreprendre démarche ba créer plateforme bu mel non donc pratiquement ñu ñoo ci pionnier en Afrique donc euh, peut-être sax do ay moyens waye peut-être xarañu équipe yi ñu ak ñooñu rek moom moo tax ñu yegg si fii fii nga ñaan daal mu ngi soog a dëgmal donc euh, mu ngi commencé am donc euh, puissance parce que léegi li ngay wax ni dans quelques heures dinañ ko traçaré dans le monde entier diaspora beeg partout donc en même temps Amérique ak océane ak ñëpp dinañ ko jotandoor bu soob yàlla te loolu tam performance la xarañu si affaire matière technologie aussi doomu Sénégal yi la technicien yi ñu àndal ak ñi des Dakar nga xam ne ñoom ñoo koy réceptionné ak yëpp nga ñaanal ñu daal APS TV yi bi si kanamee ñu dégg ko comme agence France Presse ni mu nekkee principal fournisseur d'image dans le monde euh, bu ko defee ñu bokk si yooyu parce que si wàllu professionnalisme amul différence xëy na équipement la ñu ëppale wala moyen mais ëppale wu ñu benn donc euh, en termes de qualité des ressources humaines donc nga ñaanal ñu si projet bi ñaanal réew mi donc euh, ñaanal réew mi ay xéewal